ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun tous les matins nag ak équipe Equivox TV xam ngeen ni saa su ne comme ni niñ koy defee rek yéen a ngi seen matinal de revue des titres ah, ma ànd ci nag ak ki ma ci tàmm di ci àndal nee naa leen kooku sama góor la sama doom la sama càmmeñ la sama frère la sama tuteur la en même temps kookoy Pape Ousmane Cissé ah journaliste bu mag boobu nga xam ne kenn dootu ko présenté nee leen man sañu maa taxaw ci plateau bi man kese te moom taxawul sama wet ndax daf may dolli fit ah Pape Ousmane maa ngi lay di la nuyu. ñi nga xam te dañuy safoo revue des titres commenté euh, bi am na solo lool waaye tey daal gis naa ne da ngaa dugg si kër gi ñu bëri kontaan ah. waaw di jaajëfal madame macha allah gis nañ <laughs> gis naa loolu gis naa loolu. couleur yooyu laa indi daal. Hmm? waaw ñu koy ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu au passage madame. di ko nuyu bu <laughs> baax a baax di rafetlu lim ñuy àndil ci plateau bi. <laughs> wax nañ ko sànq. Aïcha dañuy rek tàmbali li nga xamante ni tey moom mooy revue des titres ah dañ koy dooree nag ak ki nga xamante ne moom mooy le soleil Pape Ousmane xam naa ne fi ñuy tijjee dina neex mm-hmm. euh, ak ki nga xamante ne moom mooy xalif général de la Fayda Tijaniya la ñu wax danañ un style et des convictions fortes ñu gis ci ki nga xamante ne moom mooy image mu ngoog muy Cheikh euh, Mahi Ibrahima mm-hmm. Niass di xalif général bu Medina Baye mm-hmm. di koo xamante ne sénégalais yi euh, découvrir nañu ko ci te soleil ñëw ci ci page bi. parce que mu mhm. ngi war a def visite ci Ndakaaru su ma dimanche bi fas yéene daje ak ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi euh, ci ci ci ci ay génnement mhm. moom dafa yàgg surprendre nit boo xoolee sax biir soleil mu ngi wax ni considéré wul boppam comme xalif mhm. donc koo xamante ni dafa euh, jëmmal xaddis bi wax ni euh, mbiru jullit ñi dafa war a yitteel ku ne moom tey na dafa jël mbiru jullit ñi mbiru waa penc mi doon lu ko yitteel ndax bokk na ci ñi nga xamante ne amul luy jib ci penc bi te doo ko ci dégg rawatina dégg nga li mu wax ci euh, euh, local yi ñu jëm mhm. jàpp na ni anam gi nga xamante ne noonu lañu ci bëri di sàkkoo jote ci gox goxaat yi nee na forcément doonut loo xamante ne mën nañoo indi leader bi ñuy xaar mhm. nga gis la koo xamante ne euh, ci ay discours ci ay waxam ci ci taxawaayam dafay dellusiwaat askan mhm. dafay dellusiwaat nit ñi te delloo si waat bi muy bi muy delloo si ñin ciy gën a maanaam bàyyiloo xel mooy ñi nga xam te nañ leen wooye njiit mm. ci moom laa mës a déggee te chaque fois dama koy répété naan yàlla nañ ko yàlla defal nga dégg muy wax ni yàlla nañu yàlla may njiit bu fàtte boppam ndax avantage bi nekk ci njiit bu fàtte boppam mooy li muy mettre en avant mooy l'intérêt mm-hmm. supérieur d'une communauté d'un pays euh, voilà moom lay gën a mettre en avant mm-hmm. ku fàtte boppam ci tey askan wi rek lay dox koo xamante ne foo ko gisee loo ko dégg rek bu laajte di nga xam ne kii nekkul ci intérêt boppam nekk ci bàkkanu bopp mm-hmm. te ak xalif général bu Medina Baye souvent li nga xamante ne mooy ay dem ci loolu lay ñëw moo tax tey ni mu ko defee doon lu ñu bett te nit la koo xamante ne da koy gën di bëri gis nga barki démb boo njaay ah, ci euh, julli jumaa ca Medina mm-hmm. ñuy fësal benn photo boo xamante ne ma nga toogee ci sàppe yi donc modeste ko ku mm-hmm. wàccee boppam immunité xamante ne nii da koy wane loolu yëpp nag leadership la booy wane ne tey lu ne mën naa daje say loxo parce que loolu la jàngale mhm. tey lu ne daje na ci loxom ndax nekk xalif de la fayda yemul rek ci Kaolack yemul rek Sénégal tey bàyyi compte des milliers de de des millions de taalibe la bëggoon wax un peu mhm. partout dans la monde tey ñooñu ñëpp di reconnaître seen bopp ci yow leadership book ngay incarné mhm. nga mën a jël loolu yëpp jàpp ni li gën a am solo comme ni ñu koy waxee mooy doomu aadama gis nga vidéo bi circulé muy wax ni nit ki fépp fuñ la làmb rek war nañoo yëg ci yow dignité mu ne doomu aadama du rek ay oto mhm. du rek ay kër du rek yooyu mu ne waaye fu la làmb gis nii dignité gis nga bu waat valeur yooyu en tant que mhm. xalif di ko doxee mhm. loolu benn stabilité bu doy waar lay indi ci réew boo xam te ne soxla nañ ko jamono ji nga xam te ne wax naa ko ñu ngi ci ay fragilité te li ko indi mooy ci langue politique na mu demee yëkkati kàddoom ak ñeneen ñu dul moom it dina am solo rawatina moom mi nga xam te ne tey moom mooy représenté Mawlana Cheikh al Islam en tout cas am na solo macha allah te ñu ngi koy rafetlu aussi bu baax a baax xanaa rek ñu jàll ci li nga xamante ne ñoom ñooy la tribune ñoom nag dañu xëyee ak euh, le juge constitutionnel Aminata Ly Ndiaye et Doudou Ndir poussé vers la sortie nee nañu ça doute au conseil constitutionnel malaise à la Sénat du li yàgg na te boo xoolee même Sénat sax yaa ngi dégg du Ndir depuis bi mu euh, jëlee retraite am kenn xamul kañ la loolu tamit problème la ci réew mi ah. Mm-hmm. du moom rek même boo demee ARMP déggoon nga ñu doon wax ne njiit la waroon na faa jóge bu yàgg. Mm-hmm. soo demee ba ICS ka fay nekk jamono ji ba mu retraité kenn xamul nu mu toll. ak mm-hmm. àndal cest même boo demee ci administration boo demee ci yenn ministères yi. ñi nga xam ne jël nañ sa retraite bu yàgg ba léegi la ñu maintenir loolu nag bu ñu koy wax. ne dañu bëgg ndaw ñu am xëy. c'est-à-dire euh, gis nga ni euh, àndul mm. tey munoo euh, maanaam promouvoir yenn poste yi mm-hmm. alors que ñu waroon jël seen retraite bu yàgg waroon nañ dem ñoo ci agrippé ba léegi dafay indi jafe-jafe maintenant ah, ci conseil constitutionnel yàgg na doon malaise boo fàttalikoo cinq la ñu woon ñaari mm-hmm. amoon na ñaari sage yoo xamante ne depuis janvier changé wuñ leen ba keroog assemblée nationale ci bi ñuy mhm. def euh, bi ñuy bi bi waa euh, opposition bi doon déposer seen recours mhm. ñu waroon cee statuer te balaa ñoo statuer il faut ñu doon seet yi mhm. ci la le président Macky Sall xalaate waat changé na alors bi ñu nemmeekoo ni manqué nañu yàgg nañ lu mel noonu la ñuy dund tey pour dire quoi pour dire que les institutions yoo xam ne tey ñoom ñoo indi équilibre bi ñu soxla ñoom ñoo ñuy permettre tey réew mi taxaw ci ci ci ci maanaam ci taxawaay boo xam te ne du jeng tey bu ñu demee ba ñoom ñoo am jafe-jafe ngir conformer wu à la dafay indiwaat beneen lecture dafay indiwaat beneen gis-gis boo xam te ne dañ koy am ci suñu bànqaas yi comme ni ñu koy gisee ci conseil constitutionnel. Mm. loolu yëpp tey doolee ko ci ñàkk confiance bi nga am te souvent dañ koy am. Mm. parce que dañu mettre en en jeu taxawaayu un politique. Mm. lii seen cër lii seen taxawaay pour permettre tey réew mi mën a yegg ci stabilité bi ñu wax mooy que ne à chaque fois ñoom ñuy woote yoon. ñoom ñi nga xam ne ñoo war a jëmmal yoon ñoo mhm. war a nag conformer à ça te lu mel nii nga xam te ne ay doute la yu ñuy indi ci institution yu tel ne conseil constitutionnel pour man war nañ ci mën a gën a taxaw ah lever équivoque yi nga xam te ne nañu permettre ñu mhm. nekk ci beneen level mais pas chaque fois ñu nekk ci yi nga xamante ne dafay euh, sotti discrédit ci li nga xam te ne mooy suñuy institution en tout cas gis nañ ko ci ay administration yu bëri na ah, du Sénat kese xanaa rek ñu jàll ci li quotidien gis nga li xew démb xam naa ni mënutoon ñàkk nag faaw ñu ñëw ci ñoom na dañuy xëyee ci li nga ki nga xamante ni nag moom mooy Barthélemy Diaz nenañ Barthélemy Diaz n'en peut plus diggante marche réprimée ak ay arrestation waa xam nga nag politique loolu la ci réew mi mm. ñi ngi yor tey gi balaa ñu caa jot mm-hmm. réprimer nañ gàntal nañu leen ay marche tey ñu jàppoon ni bu ñu yegsee ci réew mi mhm. dinañ jàngoon ci loolu ñu doon ñaawlu doon ko xaxar jëmee ci maître Abdoulaye Wade mhm. ba ñu doon ŋàññi même arrêté Ousmane Ousmane Ngom bi nga xamante ni jur na fi coow ba ñoom ñu jàpp ni c'est anti c'est antidémocratique mhm. ñooñu tey ñoo ñëw ci réew mi jot ci mel ni comme si fàtt nañ li ñu doon wax barki démb yooyu loolu nag pour dire quoi mooy ni Barth tey li muy dund xam na ni ci politique ñoom noonu lañ koy dundee maintenant li ci am solo mooy du ma ko tuddee rétropédalage comme ni ko ñenn ñi xalaate mooy la fait que li xewoon démb moom àdduna ci benn télévision de la place wax ne que ni mhm. su fekkee ni sama dox yi may dox dafa nar a jut fitna wala ñu jàpp ni leneen lu mhm. uteeg man la ma ciy sàkku bàyyi naa ko xam nga dafa Euh, gaañ ba mu fa jógee xam naa nag euh, fugg bi muy amee rek. moom moo tax <laughs> ah mu waxoon ni suba dinaa ñëwaat. Mhm. nee na delluwaat na ginnaaw xam naa mhm. dañoo wax na. loolu wax na ko ci xëy yamu ci le mhm. premier décembre waxoon na du déférer à sa convocation. que dafa bii mu demoon le 10 novembre mooy dafa dem pour ñu àtte ko. que buñ ko renvoyé dootu ñëwaat nee na dina dem wuy ji. xam na yeneen tamit yu mu def yoo xam yu mu wax yoo xamante ni dafay wone ni même bu doon meroon na comme ni mu ko bi mu meree di wax ci Ndiaga Diouf. ni loolu neexul papam jéggalu na xam nga fii laa toogal keroog doon wax naan la nit koo xam ne dafa génn àddina am na benn am na am na am na benn cër buñ ko war a jox mhm, mhm. mais la manière dont il a parlé de de de de de Ndiaga bi nga xam ne mhm. génn na àddina. fii laa toog ne la loolu rafetlu ma ko leader da am da nga war a am retenu. tey Barth war woon yegg ci niveau boo xam ne affaire dafay toogaat naan maa ngi jéggul maa ngi nangam moo tax ñu ko ñuy sàkku ci leader yi. ci à chaque fois. buñ leen mettre en jeu. que topp seen bakkan. ñu ànd ak dal daal bu ñu topp seen i mer bu ñu topp seeni i impulsion. ñuy wax loo xam te ne tey dina tax ba ëllëg du ñu ci ñaaw mais tey Barth mu ngi nii delluwaat na ginnaaw di tuub delluwaat ginnaaw ne la ma waxoon ne du ma déférer à ma convocation le premier. Mhm. delluwaat na ci ginnaaw waxaan na leneen. Mhm. loolu yëpp pour dire quoi que ni tey homme politique du am na dayo boo am ni ñi jox lañ ci rek lu la neex nga wax. lu la mhm. neex nga def li muy indi mooy lii. et jàpp naa ni il n'est jamais trop pour euh, s'excuser wala pour delluwaat ginnaaw ci li nga jàpp ne xëy na àndut ak li ñuy xaar ci moom. Mm-hmm. que mu jéggalu loolu it jàpp naa ni euh, nit ku am grandeur mooy def loolu. Aïcha am na solo loolu xanaa dañuy jàll rek ci li nga xamante ne ñoom ñooy l'observateur l'observateur nag tey dañu xëy andi ñu benn enquête boo xamante ne ci ñi nga xamante ne ñoom lañu tuddee travailleuse du sexe mu nekk phénomène boo xamante ne defaat na surface Pape Ousmane ah dama lay jox rek ay chiffres nee nañu 4652 travailleuses du sexe répertoriées la ñu wax ñu andiwaat ñu nee nañu 234 cartes sanitaires délivrées ba tey it ñu ne. plus de 200 prostituées atteintes du sida moom la gis instant bi ci xëti njëkk yi. xam nga boo fàttaliku le premier euh, kañ la doon célébrer la journée non non am na benn jour bi ñu doon wax ci kaw sida yi. Euh, def nañ ko fi voilà ñu doon wax ni. ci ñi mu gën a des mooy soit borom ñaari tur mhm. soit ñi nga xam dañuy jaay seen bopp. Mhm. tey mu ngi nii enquête bi di confirmer lu mel euh, lii la ñu woowee les vieux métiers. Mm. yàgg na ci. mais fii bëgg a yàgg de. te euh, xaw moo ni yegg nañ ci record bi. ci ñi nga mhm. xamante ne tey ñu ngi ci yëngatu. presque mhm. cent mille ci ñu ci yëngatu. ak mhm. tamit carte yi nga xam te ñu ngi koy dérivé plus de deux cent euh, cartes. yoo xamante ne professionnel jox nañ leen ko. le mal est là tey euh, xam nga yaa ngi wax ni ñii peut-être. reconnaître nañu leen. Mhm. à travers leur carte. mais am na ay clandestins yoo xam ne. ñoo ci bëri <laughs> te ñooñu gën a exposé nag en gis nga am na phénomène boo xamante ne. daanaka mun mhm. naa ne nañ ko bàyyi xel ndax dafa commencé bëri zone bi ma dëkkee moo tax ma xam ko mooy salon de massage am na nag. Mhm. yu tegu ci yoon waxuma ñooñu. mais am na ñu koy woote woo te leneen lañ ci jublu. ah ba gis nañ ko fi de. ci ay jamono appartement kéemtaan la ci réew <laughs> auberge yee bari ku jóg jël sa euh, appartement transformé ko def ko appartement meublé ba mhm. pare am na benn jour may waxtaan ak benn kilifa sociologue ci réew mi mu ne euh, parce que ñii ngay woowee les travailleuses du sexe mhm. si suñu ne benn jour doon waxtaan ak kilifa mu ne yenn xew-xew diine yi nga xam te ne état da ci dugal loxo mhm. koppar boobu état di génne bu ñu fàttali ni contribution ñii di jaay seen bokk ci lañu bokk te ñañ koy jébbal mm. ay kilifa diine de ndax ñooñu buñ naanee bu ñu ñaanee ginnaaw buñ jotee loolu dana nangu wax na bu xóot mm. te ñii dañuy contribuer ci suñu trésor public suñu gafag ak réew mi koppar yi fay génnee ñii dañ ciy contribuer en tout dañuy def xam nañu ko Mm, donte liggéey ba rafetluwuñu ko sax mais ban nañ ba tuddee ko liggéey ndax travailleuse lañ leen ko tuddee donc euh, état moo leen ko nangul yaakaar naa ne ñu ci mën nag ah dina xaw a doy waar en tout cas diggante Sénégal Nigéria ak Guinée daal ñoom ñoo féetee kaw ci mbir moomu le ñu jàll ci les échos les échos nag ñoom dañu xëyee fële ci stade bu Diamniadio ne nañ les ouvriers grognent en silence maanaam ña nga xëy ñi ci ndaw yoo nga xam ne ñoo xëy di liggéey fële na la ci boobu stade daal en tout cas seen condition yi doy na ba tey it ñu des rek ci les écos ñoom nee nañ de gros cafards découverts a Pamecas. waaw moom mooy euh, euh, maanaam cette gestion nga xam te ne Afrique yëpp la transcende nee man Afrique. amuñu mm. benn jafe-jafe lu dul problème de gestion mooy am ay ay instruments yu ñu permettre. Mm-hmm. nit ki ak foo mënti nekk on le voit à euh, ni ñu ko waxee ci les pays occidentaux. Mm-hmm. mooy ki dàq sàcc ci réew mi même bu ñu ko joxe institution boo xam te ne gafa ga réew baa ngi fi mënu koo sàcc ndax instruments yi tey loolu est-ce que war ñu ko mën a instaurer suñu service public yi. suñu administration bi suñu direction yi su ko defee ba pare ñuy bàyyi ñi war liggéey ñu liggéey mbir yi. ba mu yegg ci yoon yoon def liggéeyam ci daan gis nga absence de de de de de de de comment on l'appelle encore de sanction. lii lay indi. audit ñu war def. voilà c'est-à-dire même ko defee def liggéey bi ba ñu njort ni kii ci exécutif liggéeyam njort nañ ni koppar bëri dem na. Mm. comme ce qui s'est passé xoolal Doudou Ka jóge na Fongip koppar yu bëri ay milliards génnee fa. Mm. xam nga la ko laajee damaa toog rek ay sàcc ñëw dugg si naaj la tey anam ma nga aéroport. <laughs> loolu noonu ndax enquête am na ci. Mm-hmm. est-ce que la mu wax looloo am. donc absence de gis nga absence de de de sanction. Mm-hmm. wala foo sentir ne dañu wax transparence mais amu ci. Mm-hmm. lii lay indi. maintenant leneen li nga jiit jiital loolu moo am ci secteur yu bëri. Mhm. dama ne ICS di nga fa fekk liggéey euh, liggéeykat maanaam ICS ci boppam ñi muy jël di leen sous-traité loo. Mhm. ñooñu ña ñuy liggéeyloo ci condition yi doy waar loo xamante ni amuñu sax ñoom maanaam ay contrat yoo xamante ni daf leen di sécuriser. Mhm. sans compter lañ leen di fay ak liggéey bi ñu leen di jox. tey moom ngay fekk ci ñii nga xamante ni ñu ngi yuuxu tey demal port autonome bu Dakar fi ñu woowee mool 8. dañ fa fekk forage yu yu yu yu gudd yooyu nga xam te ne ñu ngi koy tabax yooyu lañ war a sànni géej mhm. ngir pétrole bi ñu war a extraire et tout liggéey loolu demal nga xool tey lañ leen di fay lu misérable te gi xam ko mhm. te tey bu leen wax lañ leen di fay ak liggéey bi ñu leen di bi ñuy def mhm. nga xam te mën nañoo xëyee seen kër cinq heures du matin des fois am na ñoo xam dañuy fanaan te bu ñuy wàcc buñ la xee li nga xam ne moom la ñu am pour dire que l'emploi décent bi ñu wax ci réew théorie la tey ndaw ñi pare nañu wane nañu ko ñii lépp lu ñu am mën nañ ci sóobu ñenn njaw laa xam ne am na ñenn ñoo xam ne nag mhm. ñoom dañuy taamu mais ñi nga xam te tey ñuy xëy fajar nga leen di gis ñuy escalader mhm. bus au bus ñu yéeg ci car au car yéeg ci centre ville mhm. ñoom ngay gis ci pousse pousse yi des fois yaa ngi xalaat euh, descente euh, Sandaga bi foofu la ñuy téye pousse pousse yi waaye moom romb Malick bi noonu yéeg nga leen di gis euh, loolu gën a leen leneen lu dul loolu loolu mhm. tey jàpp naa ne war nañ mën a am taxawaay ba pare état di xool ñi nga xam te ne tey ñoom ñooy les multinationales yi gagné marché yi mhm. di liggéey loowaat sénégalais yi mhm. dans le cadre soit euh, sous-traitance wala main d'œuvre locale bi nga xam ñoom lañ ko jox état war na mën a am regard di xool ñooñu ci yan condition yi nekk mais gis nga li ngay gis ni moom doomu Sénégal yu bëri di jooy ci yenn entreprise yu mag yoo xamante ne ñi ko fi implanté yeneen doomu réew lañ mais di leen liggéeyloo ci anam goo xam ne parce que jàpp nañu ni. Mhm. mën nañ ko def te dara du xew. parce que amuñu contrôle boobu nga xam ne état daf koy def ci entreprise yooyu di taxaw di xool ndax ay doomam. Mhm. ñu ngi wàccoog ñoom ca la war ñoom ci liggéey bi. loolu mooy indi lii moo tax euh, ñii ñu ngi yuuxu waxee gox yu bëri ñooy yuuxu lu mel ñooy yuuxandoo lu mel ni am na solo lool xanaa rek ñu jàll ci Sud Quotidien ñoom nag dañu xëyee ak ki nga xamante ne moom mooy Abdoul Aziz Tall nekk ancien ministre directeur de cabinet du président de la République actuellement moom nag lu mu xëyee ci xeetu njëkk yi nee na une vraie démocratie a davantage besoin d'oxygène que a lacrymogène. waaw parce que lacrymogène bu jibee rek mooy violence baa ngi jib. Mhm. te bu jibee mën naa indi instabilité suñu réew te ñun ñëpp moom la ñuy bañ moo tax. Mhm. sérénité li may woote mooy sérénité. Mhm. ci nag ñi nga xam te ne ñooy nguur. xam nga wax ji mu wax kan lay tontu. président Macky Sall mi waxoon ni personne ne peut parce que j'ai la force publique. on ne pouvait pas le faire jamono bay tey nga xamante ni doole ji. maa ngi ci pouvoir maa ngi ci moom lay tontu moo tax mu koy wax ni. démocratie dëgg. Mhm. li mu gën a soxla mooy oxygène noyyi. maanaam liberté. Mhm. voilà liberté. Mhm. maanaam bàyyi maanaam les pensées mën a exprimer wu. waaye tamit pensées yooyu dañ ko war a mën a teg ci dëgg. ak it bañ a def comme li ñuy gis nii di saaga di intimider. di joxe ay ay ay ay semblant wala wala wala wala wala wala di nëbb ay wax. te li nga ci jublu mooy. appel à l'insurrection non. maturité la nag. de part et d'autre waaye nag ki ñu gën a xaar ngir mun a jox loolu muy nguur amee sérénité. Mm-hmm. sérénité am impartialité boobu noonu parce que impartialité bu ko nguur di incarné mooy ne. Mm-hmm. du xool yow Mariama ndax couleur bi nga euh, parti bi nga bokk. Mm-hmm. ndax yow lii nga nangam déedéet. li muy xool ci yow te di ko gis mooy couleur bi ñu boole muy le Sénégal. un état impartial suñ ko wax loolu la suñuy wane tamit nguur gu ànd ak dal ak sérénité loolu la mais bu fekkee ni ñoom lu ci ëpp dañoo far. mooy indi ñàkk dal bi. te far boo bu amee rek mhm. soo doxalee soo soo atte atte far lay jur mhm. soo doxalee doxalu far lay jur soo waxee waxu far lay jur te le camp d'en face su fekkee loolu ressenti ba ñu am ñoom it li ñu am mhm. comme motif pour mën a kii rek mooy résister te loolu ñaar yooyu bu dajee rek démocratie dàqu na te bu boobaa leneen lay feeñal moo tax ñuy woo ñi xam te ñoo nekk ci instance de responsabilité yi nga xam te mooy incarner état ñu ànd ak sérénité ànd ak dal nag ñu impartial ci li nga xam te ne te ñëpp ñoo dëppoo ni ñoo ko moom su ko defee lii muy wax ni mhm. moom professeur Abdoul Aziz Tall dina mhm. ci yegg moo ñu am une démocratie boo xam te ne oxygène mhm. moo tey loolu waaye du doon ay lacrymogène. nga xamante moom mooy Tribune Sport ñoom nag xëyuñu ak ki nga xamante ne moom mooy Matar Ba sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations nee na nous voulons être prêts avant de demander. waaw moo gën ndax lu ko mooy gàcce nga am. ah waaw doy na waar comme Sénégal nee nañ amuñu benn stade bu baax. gis nga ko mhm. gàcce la. Ah. tey te xool ñun ñooy. Mhm. la première équipe euh, en Afrique. Mhm. ñu ngi ko téye nag depuis des années. war mm. na def léegi deux ans je crois. mu ngi bëgg a yàgg macha allah. Mm-hmm. mais xoolal mm. suñu marché yëpp su dul Lat Joor dañuy génn te Lat bii gis nga. il a mm-hmm. fallu que coow li bëree ci gazon beeg dégg nga passe d'armes bi fi amoon diggante fédération ak Sadio Mané. di mm-hmm. déplorer nga xamante ne moom moo aju ci pelouse bi. Euh, ce qui est mooy kenn rek lañu gis ni moo koy réflexionné. mooy le promoteur Mbaye Faye chaque fois su ma ko dañuy noonu moom laa gis. si suñu mhm. stade yëpp moom la ñuy dénk mu koy réfectionné. Mhm. mel ni moom rek moo amee xam-xam bi keneen amu loolu aussi la. Mhm. moo tax li mu wax ni loolu lañ gën a ànd. nañu xaar ba pare ba nga xam duñu am benn gàcce fii lañ doon commencé. di def match stade Lat courant coupé. gàcce topp ñu. nga loolu kéem tànn la lu ñaaw la waaw. du honoré suñu xaar niveau euh, africain. te xoolee réew yu mel ni ay. Afrique du Sud quand tu regardes seen i seen i match tu as comme l'impression que ni Europe nga nekk. dire mm, c'est aussi quand même mm. on va mu dire que ni Sénégal du Afrique du Sud mais li li ma bëgg a wax foofu mooy liggéey réew dañ koy liggéey. ah waaw loolu la su fekkee taxaw nañ ci liggéey ko rek. Mhm. mooy ni lépp luñ soxla nañ ko am. et je suis en phase avec lui. comme mhm. quoi qu'il faut être prêt. avant de demander loolu de des compétitions am solo ngi noonu. ayca nag Pape Ousmane tey mu nekkoon li leen andiloon ci li nga xamante moom mooy revue des titres ma bàyyi la rek euh, nga tàggoo ak suñu mbokku internautes yi waaw di leen sant comme ni ñu bi jot ñi nga mm-hmm. xamante ñooy internautes yi suba incha allah mooy vendredi ñu fi dajawaat ah, ak yeneen revue commentaire di la gërëm di la sant yow it ayca ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax man nag maa leen di jox rendez-vous léegi-léegi si seen deuxième partie seen cas ñu ngi leen ñëwaat ak yéen